asalaamaaleykum fidèle téléspectateur Touba TV Fat Bintou Samb desiwaat di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen eh, di nuyu bu baax nag suñu PDG di jëwriñ Mbackiou fay eh, di nuyu bu baax nag suñu directeur des programmes monsieur pap Dieng Ndiaye suñu coordonnateur Cheikh Bala Samb bu ñu leen nuyoo nag nuyu nañu structure bi yëpp bàyyiwuñu kenn ku lim ju war a doo matal ñu ngi leen wax ni rek desuwaat nañu si émission bi nga xamante ni moom mooy les cinq minutes deux muy capsule cinq minutes yu am solo yoo xamante ni bi saa su ne di leen koy bàyyi xel di leen ko indil ci télévision Touba TV di leen wax ni tey ji nag liñ leen indil mooy dox mbokk dox mbokk nag bu ngeen ko déggee rek xam ni bi mooy li ëpp njariñ ak li ëpp solo ci li nga xamante ni bi mën nañ koo lim ci àddina ndax nag mbokk mooy lépp mbokk mooy lépp Euh, kenn ku ci nekk boo doon choisiral sa bopp say mbokk fa nga juddoo da nga xool waaye nee naa leen euh, ki nga xamante ne bi euh, suñu borom moo ko choisiral ndax ñëpp nag yàlla leen choisiral mbokk suñu borom moo la choisiral moo la tànnal ndey moo la tànnal baay moo la tanal askan moo la tànnal juddu kooku war naa war naa kooku famu bokk war na ko téye bu baax a baax a baax a baax ndax nag mbokk dafa bari façon mbokk géñoo dafa am mooy ki nga bokkal baay mbokki meen dafa am mooy ki nga bokkal ndey waaye it nag mbokk yi nga xamante ne ñoom ñooy say dëkkandoo war nañ ci war war nga leen a bàyyi xel am na ñoo war a comporté wu ak ñoom waaye tey jii ki nga xamante ne bi ndeysaan mooy sa mbokk bi nga xamante ne yéen a mbokk fi ngeen liggéey ndax nag nee na leen ki nga xam ne da ngeen xëy suba bi suba si di ngeen gisee wala ngoon si di ngeen gisee kooku sa mbokk la war nga ko fonk mbokk nag alalu yàlla la bundee wax nag mbokk au vrai sens mooy ki nga xamante ni bi yéen a bokk ci maam yéen a bokk ci wàllu ndey yéen a bokk ci wàllu baay foofa tey moom la ñu indi li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi donc foofu li fa xaj rek mooy jàmm waaw te jàmm moo gën ay ñu bokk dañuy ànd ñu bokk dañuy rafetal ñu bokk dañuy waxante dëgg ñu bokk dañuy jàppante loolu moo am solo loolu mooy fay ki nga xamante ni tey jii dafa bokk ci askan ndeysaan àddina tasaare ko li war mbokk ga rek mooy jël ko récupérer ko loolu nag mooy kàddu suñu sang bu tedd ba di sëñ euh, suñu sang bu tedd ba ndeysaan Euh, bokk ci njabootu ko sëñ soy bu Mbàkke sëñ Abdou Samad Mbàkke ndeysaan nee na bu la boo fekkee sa mbokk àddina tasaare ko danga koy jël fexe ba dajale waat ko ba mu baax a baax a baax daat koy téye daat koy sàmm daat koy jàppale bañ koo boddi bañ koo sànni bañ koo xas bañ ko wax lu ñaaw loolu du defar mbokk déedéet gàcce biir néeg doomu ndey koy faj waaye gàcce penc doomu bàyyee koy faj te loolu kenn ku ne war na ca bàyyi xel ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la rawatina nag ak mbokk suñu borom ku ordonné la ndax nag kër dañuy am na taaw am na digg am na caat kon nag kenn ku ci nekk rek am na rôle boo war a joué ci mbokk gi bu fekkee yow yaay taaw am nga rôle taaw boo war a joué bu fekkee digg ba am nga rôle boo war a joué waaye bu fekkee yaay caat ma am nga loo war a joué waaye nag loolu bu ne tey bu dee wax mbokk rek mooy ñi nga xamante ni bi tey ji ñooy fondement bu mooy waajur yi waaw mooy waajur yi gannaaw ñoom bon rafetale ba pare ba boole seen i njaboot kon njaboot gi doona war a ànd te sàmm mbokk gi te téye mbokk gi loolu mooy dëgg te téye mbokk gi te bàyyi yàkkante bi te bàyyi waxante lu ñaaw yi li xew léegi ci jamono jii jël sa mbokk dem ci bërëb yàq ko fu ba ku ko gis du ko bëgg xool jël sa mbokk teg dugal ko ci jafe-jafe yoo xamante ne bii ku ko gis rek yërëm ko ta ko war ta nga waroon koo jël sàmm jàppale ko dimbali ko suñu borom bu la dénkee dala séddale loo boo nekkee ci askan suñu borom dénk la teraanga nga yor say mbokk ñu toog jàppale leen kenn ku ci ne na ci gis boppam xam ne bi nag wërsëg wi nga war ñëpp ko bokk loolu tax ñu naan mbokk wërsëg wi nga yor ñëpp a ko bokk kenn ku ci nekk lam ca war a am nga jël jox ko ko loolu mooy defal ay mbokk kon nag xanaa desiwaat rek di leen wax ni dee leen bàyyi xel ak mbokkoo dee leen bàyyi ak rafetal ndax àddina rafetal rek a fi mu nekk dee leen bàyyi ak mbokkoo dee leen jàppante loolu moo am solo loolu sama bopp laa koy commencé waaye yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may suivre sur la télévision Touba TV ngeen nit ñu baax dama leen koy soññ di leen wax ni rek ni ah les cinq minutes de daat nay jeex waaye nag bu leen fàttali ni maa ngi leen jox dig daje incha allah prochainement ci beneen thème